te ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal maamum Serigne Touba mu defe ko lu kawe njortam ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Cheikh mi nga xam ni woo moo wuutu Serigne Saliou Mbacké mu yàgg fi sëriñ bi ñu nuyu la Serigne Ousseynou Kane borom xalima gi jàmbaari Serigne Saliou kan ba lañ sa ñu ngi lay nuyu ak di la ñaanal barki démb bi ñu yónnee maag sëriñ Yaasin mii ci sëriñ Seex mu sëriñ Saliou ñu di ko yët nagam bi ñuy dugg si rek doxanu fukki jéego rek jàkkaarloog sëriñ Seex sa sang ba mu toog ci véranda bi taalibe yi di ko ziyaar bi ñu joxe loxo Ousseynou ni ko boromu xalima gi Serigne Ousseynou ñu yónni nag yi mu baaxoo jox Serigne Saliou indi na ko mu ngi nii ci buntu kër gi lanu xëcc maag Serigne Yacine mu leen taxaw leen nii yéen keroog damay xool Serigne Cheikh gis fa ñaari milliardaire kenn ki di Samuel Sarr kenn ki di Ablaye Tage mi nga xam ni mooy borom këru soxna moomi kebe moo laaj njuga ma xool sëriñ see xool ñaari jëmm yooyu xool ñooñu li ñu yor ci àddina sëriñ seex fi mu toog dara feesul bëtëm ma xam ni kii sayxum rabbi la kii moo doon sëriñ Saliou keroog bi ñu ñëwee New York moom ni ko sa taalibe bi de sëriñu sëy noo ñu yónni nag yu mu baaxoo di ko indi at mu jot indi na ko mu ci buntu kër gi ne mu ngi lay nuyu mu ngi lay sant te sàkku nga ñaanal ko at mu jot mu di ko gën a man nee na feddali ak laxasaayam akuk taalibeem jaayante ko ngir Serigne Touba waaye ngir Serigne Saliou sa way juró bi ma daanele rek Serigne mi tàllal leen mu ñaanal nu bi may jóg di dem maag seen yasan lanu woo ba nu ñëw mun ma boo demee nuyul ma ko kooku mooy sëriñ Cheikh gis na sa jëf gis na sa liggéey kan ba lay sa lii nga woote mu yor yor mooy bu bii nga xam ni bu sëriñ Tuubaa di muloon ci géej gi dara du ko jàll Cheikh ma Ka ne bu dul woon dem gi wala fu nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem ni raanu bu dul woon ak dem ci géej gi ñun lu bon dana nu dal barki sëriñ Tuubaa kan yàlla na nga wér tey ku ne xam na ni yor-yoru mooy bi ñëpp yëg nañu ko télévision yaa ngi nii di ko jël seen TV Tawfekh Production DTV ngi ñëw barki dem la fi TFM jaar yow su mbir day yaatu ba international Cheikh Ousseynou di nga toj France Cheikh Ousseynou di nga toj Suisse Cheikh Ousseynou di nga toj Allemagne Cheikh Ousseynou di nga toj Amérique yow ku la bañ day ñaw ba faw dootu rafet de yow ku bëgg taram bi yokk rek na lay bégal yow ku lay bëggal di am jàmm waaye ku lay noonoo kan ba lay sa ah de ko xool rek kooku gannaaw li waaye nag li tëj wax ji mooy màggal bi mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis léegi wax ji mooy ni'matu rabbik sunu borom xéwal yi mu la defal koo toog de ko waxtaane waaw sunu borom mi nga xam ni njariñ du ko jariñ lor du ko lor su ma nee jàkkaarloo ku toll ni Seydina Muhammad ni ko teraanga ji ma la defal dee ko waxtaane waaw waxtaane na ko wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis salaa sallam waxtaane na ko ndax dafa am ku toll ni xaadimu rasul mu rëy te boo ko laajee yaay kan mu maay xaadimu rasul maay liggéeykatu waxtaane na ko ndax dafa am ku toll ni Cheikh Abdou Qadir Jeylaani daan xool benn biddiw benn quatre du lekk du naan bi ci jàngate loo xam ne mooy suuxar roo gi taalibe yu toll noonu ko ko am ñu fees dell ak teraanga yow firi nga wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ndax fu ñu leen xoole rek ñu delluwaat ci sa jëmm ñu sant loolu moo tax ku tedd ki bàyyiwul ba ñëw daal ni kaay leen sant la ma sama borom ci bis bi mu jógee ci géej gi déedéet dañ ni kaay leen sant la ma ci bis bi nga xam ne ci la ma natt bi war bis bi ñu ko nattoo ñëpp jàq tiit bis boobee laay sant sama borom yàlla na la nga dégg nag ci borom xam-xam ñu naan Sëñ Tuubaa santul ci dellu si gi mais dem ngi lay sant. parce que ku mémorise sa seytaane ci sa xol bokkatoo te soo bokkul da ngay riirandoo rek. moo tax waxtu yi fu mu jotee point yu bari dañ ko war di jàngat ragal yàlla gi Sëñ am ba nattu yi gënal ko ba boroomam gënal ko nattu yi maanu gi Sëñ am maanu gi tubaa Tuubaa am ba jaayanteeg boroomam ngir sawenu lenn lu ci nekk dañ ko war a jàngat ci waxtu wi ndax mooy njariñ li te mooy tawfeex ci du dañuy ñëw yor-yor bi rek tey la yor-yoru màggal nga ñëw rek sañse lekk tëdd nelaw déedéet heure bi Sëñ Tuubaa demoon da ngay delloo si waat sa bopp nga xalaat sababu dem gi ak lu ko taxoon a jóg ak lu mu jur mbir mu nekk bu amee am na lu ko sabab waaye su amee ba sotti it am na lu mu jur benn mu nekk résultat bu positif walla mu nekk résultat bu négatif donte nag ku tedd ki ay résultat am macha allah da ngay ubbi say bët rek gis teddaange la yiw la tawféex la xéewal la bis bi heure bi waxtu wii saa yu ñëwee lekk mu jàll sax war maa jafe ngir xalaat li ci Sëñ Tuubaa diggante nag borom waaye ndeysaan baax ga ak yërmande ja mu ni soppi naa ko ak cant su ñëwatee li ko tàmbalee ci ginaar ba ci gileem na ngeen ko rey terale ko bis bi lan jublu nag mooy mbégte rek boo gisee mu ne rey ginaar wala gileem waxee daa bëgg njaboot gi ñëpp bég ñu sant ci dogal bi ko yàlla natt bi ko yàlla teg ba tax mu fayee ko lii moo tax sama borom su la bëggee dimbali dalay nattu <laughs> yàlla ku mu bëgg a dimbali nattu foo fekk ku dul gàlloo akub natt du am ndimbal de ku bëgg am ndimbal ku nekk dangay ngay da ay natt ak koo a doon loolu daa mat di bàyyi xel jamono bu nekk kon nañu yeesalaat sunu taalibe te jéem a nekkaat ay murit te bëgg a jéem doon ay murit saadex te bañ a nekk ay riirandoo li xaw jamono bii déedéet sëriñ tubaa sëriñ tubaa li mu daj digganteem ak boroomam du ay caaxaan mag olof na wax ni mag du tabax xele ñëw màbb waxin la liggéey bi dañ ko war di rafetal ba keroog ñu daje sëriñ tubaa am murit bu dee jaamu yàlla rek la kenn waru ko ko dàq ngir sëriñ tubaa moo jàmm yàlla ba jaamu yàlla ci kii bu dee njàng la kenn war ko gën a góorgóorlu ci njàng ndax moo bind une tonne cinq cent te une tonne yi nee naa ba yemal ci masaalik rek masaalik dong <laughs> firi na yi àddina bi yëpp waxuma la sax biir masaalik waaye ci biir masaalik benn bayit bu naan wax waxay suma taqaf ilaahaka al ahad yaqaf ka min xawfiqahu kulla ahad bayit boobu rek firi àddina moom daa tiim alxuraan sëñ Tuubaa di ko xool ba yàgg mu daal di jël benn papier daal di ne xudan lil muttaqina gii bu ci suñu borom yaman la kaana kaafiyan nee na suñu borom daa baax rek bay def téeméeri saar ak fukk ñeent waaye nee na mën naa yem ci benn baax mooy xudan lil muttaqin njub ñeel na képp ku delloo yàlla cëram nee na ñu dem wëri ak njub delloo suñu borom cëram te kon saa yi bis bi ñëwee bu leen ci gis rek demoon na ci géej gi taxaw na kàbbar julli Sëñ Tuubaa moo taxaw ci géej gi julli mais mënoo taxaw ci géej gi julli <laughs> moo taxaw ci ndox mi julli mais ñun mënuñu ko Sëñ Tuubaa moom lañ jéem a rey ba sonn mënuñu ko rey mais ñun mënuñu ko kon lañu war mooy roy jikkoom yu tedd ya gisoo sallallahu alayhi li ko yàlla defal ni mu rëy bi nu suñu borom di jox misaal ci jëmmam ji daf ni rek wa fii rasulillahi ñëpp ni teg mu ni uswatun xasana <laughs> wa fii rasulillahi ñuy teg mu ni uswatun xasana pourtant li mën a déclaré bari na ndax sallallahu wasallam li mu def ci ay miracle mënu mënu si ko misaal dox loo na garab wax loo na mbëtt xar na weer ci màkka bëccëgu ndara kam yiifari naan ak njibar la yëkkati loxom bi wëlbati ko ba ba mu benn mu ne ko tes rek weer wi ne tasar waaye bi yàlla bi suñu borom di joxe bi bi mu koy joxañ pour ñun jullit ñu roy ci moom néewul xool leen ci xar weer yi te miracle la néewul xool leen ci ki ñëwoon ci xadara bu tedd bi jël ci jullit yegg si ci barab boo xam ne kenn musu faa yegg néewul xool leen ci ki doon doxloo garab yi néewul xool leen ci ki nga xam ne bu mësaan dox niir yi fàq di ko topp néewul xool leen ci ki nga xam ni bëti kanamam ni muy gise noonu la bëti ginnaawam di gise yaraa waraa awa amaam ndox suñu wa aynuhu kaanat tanaam te wa qalbuhu lam yanami waaye dañu wa fii rasulillahi ñu ne tekk mu ni uswatun xasana sal Mustafa sallallahu ma nga ne am na lu la ci moom ñu ne ko lan la mu ne xanaa jikko ju rafet <laughs> jikko ju paraja xanaa xanaa jikko ju rafet éducation bi mu waxee loolu Sëñ Tuubaa daal ni ah kon ndekete uswatun xasana mooy mbir mi ñu naa mu daal ni ñokket daal ni eh ku fi jàng yëkkatoon jugal ñibbi donc yëpp taxaw mu leen ndax yëg naa ni rabbi asxaabaka bil himma te wala turabbihim bi dar si faqat damay defar nit ba ku ko gis xam ne ku baax la waaye nekk ma fi di jàngale rek xaala ak xii la waxin la woon nag ñenn ñi daal di koy fekk si ci loolu mu leen koo xam ni baax moo la tax a jóg baax rek ñëwal jaayanteeg man jox ma sa bopp lenn ci mbooloo mi daal di ñokkat raam jébbal ko seen bopp àddina ak alaaxira ñenn ñi ne ko ñun jànganu fi indi woon dañuy ñibbi mu jël ña joxe woon seen bopp def ci ñoom loo xam ne ku jàng mënu koo xam ci la génnee ku nuy wax sëñ Massamba Diop Sam ci la génnee ku ñuy wax sëñ Mor Ndiaye Cargaan ci la génnee kàngami seen laykat yi ci la génne ku ne wax Cheikh Rafal génn beneen école bu ñuy wax maam Thierno Birahim génn école bi ñuy wax maam Cheikh Anta borom gaawaan ñuy école yoo xam ne kenn ku ci nekk fees nga jamono nga ne leen jàkk xam ne ñii li ne ci ñoo am njàng may woo kon rabbi asaabaka bil imma wala turabbikim bi dars faqat moo tax yar suñ bay wax na ko nee na boo amee ab yar boo amul ab yar li nga yor day wat boroomu bi yar romb fa far ko dem moo tax éducation mooy lépp alxuraan misaal na ko nee na ay gars yi yoo xam ne li ñu jàng ci ay téere ñu ne ko am mu waaye li ma ci jaaxal mooy téere dañ ko yenu rek kamasalil ximeeri yaxmilu asfara ñoom daal jàng nañu lax dëri yu mu jàng nañu fiq dañ ko maîtriser jàng nañu fiq jàng nañu géographie ñoom daal jàng nañu naxu grammaire xeeti fànn yëpp jàng nañ ko waaye li njàng mi di bari bari ak li diplôme yi di bari bari ñu naan ñu ni téere yi moo benn waay boo xam ni dafa nilaar xamul dara ñu sëf ko téere yi ci àddina bi yëpp muy dox ñoo yem ñoo yem melekaan lu ko tax mu ne parce que njàng mi mi ci bopp bi waaye pratiqué wu te xafistuma sii nag anit defati bi pratiqué moo koy maye da ngay jàng li nekk ci téere yi jëfe li ne ci téere yi sunu borom wan la ne nekkul ci téere yi ok da ngay jàng li ne ci téere yi ñu ni ngay dund li nekk ci téere yi ci biir dund ko nag ñu bënn la benn bët ngay gis lu nekkul ci téere yi yaral xafaaya bi aynu qalbi zahiratan kama yushahidu ma taxtal akinati la ko may ci tappal rek ngay ngay mucc ak i xuraafaat te yooyu boo faatoo rek bàyyi ko fi ci àddina parce que mata jumtukaay àddina la ay xuraafaat ak i tappale yuy tekki ni da am baat mi wala yu ko nuru yooya moog oto bee nga gaara ñooyam benn matériel la boo xam ne dara doo ci topp dëgg mooy kii seey ci ruuxu nit dëgg mooy kóllëre gi ki nga xam ne moom rek moo mat a àndal dëgg ngay àndal ñu di la jullee dëgg taxaw atte la ñu yor la ci sa bàmmeel dëgg taxaw di la lijjanti jël sa ruu moom dëgg balance le ko ci sa ci sa àjjana nga ne ci bàmmeel bàmmeel bi matul un mètre waaye un mètre yooyu nga xam ne matu ko ci ñu la doon suul yow yaa ngi gis ci bàmmeel bi kër gu ëpp senegal xeeti lumière bu ne gis ko xeeti bàndeex bu nekk gis ko fekk na booba dañ ne la nelawal waaye ci biir nelaw yi dangaa war a texe ci biir texe texe gi nga war a texe nag moo tax hmm. moo tax dañuy balancele sa sa sa ruuhu ci sa àjjana ngay dund comme ku nekk àjjana rek lu ko waral sa jikko ju baax loolu moo tax ki ëpp sens ci taalibe yi mooy kii roy Serigne tubaa ci melakaanam wu tedd wa roy gi ngay roy Serigne Touba ci sa melakaan wu tedd wa ci ngay yegg fi nga jëm waaye du sol ay njël di dox di yuuxu di way sama sëriñ te yow ki nga naan mooy sama sëriñ moo gën a tedd ci nit ñi te yaa gën a tedd ci doomu aadama yi parce que doo wax lu rafet sa gémmañ du wax lu rafet say tànk bu jugee rambaaj rek lay di say bët lu muy xool lu mu nett lay wër foo ko fekk buy dig lu muy nett lay wër yooyu nga dajale ci sa ci sa jikko ji ba nag bu ñu waxee nga ne Serigne Touba rek booba xol la ca nekk wute na ak Serigne Touba moo tax Serigne Touba bu nekkee ci sa xol daa war a feeñ ci say jëf boo doxee ñu kii de taalibu Serigne Touba la nga jëf ñu ni ak sa kii de Serigne Touba taalibu Serigne la nga wax ñu ni ak sa kii de taalibu Serigne Touba la waaye Serigne Touba nekkul ci aw làmmañ te da koo liggéey nag loolu daa mat di bàyyi xel. loolu moo tax saa yu ngeen dajee ci yoor yoor bii na ngeen delluwaat ci ku tedd gi ci makaarimul axlaax ñi nga xam da leen koo ñaanal ndeysaan ñaan na ko ba sonn wahab lana makaarimal axlaaqi ñu teg mu ne waaye sama borom defaaleel ma maxaat bi bila shiqaaqi nee na ko yow yàlla may nu suñu jikko yi rafet mu ne ko waaye boo rafetalee jikko yi tàppeel xol yi <laughs> waaw wahab lana makaarimal axlaaqi defaral jikko yi mu ne ko boo defaree jikko yi nag te tappoo xol yi jikko yi yàqu boo defaree jikko yi te tappi woo xol yi jikko yi yàqu moo tax maxa bu bi bila shiqaaq boo boo defaree jikko yi ba noppi yow sunu borom nag nu dimbali ba kenn ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loolu kan moo koy boobu sëriñ kan moo koy am ci melokaan wu tedd yow nga bëgg a nekk nit ku tedd di koo xam ne ku la ni jàkk du la nawloo loolu lu mat di daw la doon leen ay taalibe sëriñ tubaa te xam ni ku am sëriñ bu gën ci sëriñ yi dangaa war a doon taalibe gën ci taalibe yi ci malakaan wu rafet ci sa wax ci sa doxin ci sa jëflante ak nit ñi ci lu bari sa digganteeg sa borom ndax loolu mooy àddina bañ a topp riir mi ak yuuxaloo yi ak xuraafaat ak dox mbëkkante yi ak yi ci aju ndax sunu boroom dara feesul bëtam dara dara feesul bëtam yàlla rek a ak rëy bët dara bëtam dara dara bala nga koy xam ni yàlla dara feesul bëtam boo ko Sëñ Tuubaa daan leeral mag ñi ci njaareem ku dem da toog ñetti fan doo mën a tiim ci bala ngay xam ni yàlla dara feesul bëtam dara dara nga xaar ngoonu ajjuma googu nga xam du rate ajjuma ji ci sunu kanam nga xam ni kenn mënut a fexe ba évancé ko kenn kenn benn ajjuma la ci ajjuma yi ajjuma yëpp du ay ajjuma genn ajjuma rek mooy ajjuma mooy ajjuma gi nga xam ne benn jaam du ko wute lu juma riis riis daa am ñu julli ci sa juma am ñu julli yeneen juma am ñu julli jiw safar lu tànt riis riis daa am ñu la wuy si am ñu la wuy si waaye am na benn bis ñu dakkantele ko ngoonuk ajjuma dagg ko diggante tàkkusaan ak timis ci benn espace boo xam ni mun na koo natt ba xayma ko jat jataay boobu ndaje moomee man naa bàyyi xel te ndaje ma bu fekkul woon sa xol sëriñ tubaa deej doo ko teewee doo xam li xew bari na koo xam ne dafa jéggi siraat ba noppi te yëgul ne jéggi na bànneex ak ngëtti waaye am na ko xam ne buy jéggi siraat tiitaange ga muy tiit ci afa muy jéggi siraat bu fa dee xajoon dana fa dee juróom-ñaar fukki junni yoon ngir njàqare defar leen xol defar leen xol yi bu ngeen defaree xol yi rek bàmmeel yi yaatu benn bàmmeel xatul xol yi xat defar leen xol yi raxas ko def ci Sëñ Tuubaa rek li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa bépp mbokkum jullit man Ousseynou Kane day lu ma yéene doomu aadama yàlla naa jiitu góorgóorlu leen doon ay taalibe ku leen gis naw leen yore jikko yu rafet xam ni borom bis bii heure bii waxtu wii ah bu fekkoon ne àjjana dong la Sëñ Tuubaa ku tedd ki moom bi mu feeñee jamono la texe moom lépp a mat na de daa jugoon ngir liggéeyal jàmm ñi mais lépp a mat na lépp a mat na lépp a mat na yàlla na yàlla doon leen sutura dooli leen jàmm def leen ngeen doon dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa yàlla na ngeen set ba faw yàlla bu leen dara jaaxal ci barke bi yoor yor bii nga xam ne dama ko wóolu damaa wóolu yor-yor bi ndax damaa xam heure bii di li Sëriñ Tuubaa rek maa ngi ñaan korona tant bi rek na ma ko daan waxe yàlla na nga yokk ba yëg ko te tàqalikoog nag lépp loo ragal maa ngi koy ñaan ci dara jëye Sëriñ Saliou ndax man sama boîte postale Sëriñ Saliou rek la Sëriñ Saliou rek la xam ngeen ne sant ngeen ah waaye bu ñu xoolee xam ne sant ngeen xam ngeen ne lisaanul xa lisaanul maqaal moo gën a wër lisaanul xaal moo gën a wër lisaanul maqaal xam ngeen ne li ngay gis di ko dund muy yokk moo gën li ngay wax ba sonta du dem fenn xanaa kon sant ngeen moo ndax sant ngeen moo dégguma ndax sant ngeen daane ndax sant ngeen xanaa sant ngeen waaye waaye sant ngeen jërëjëfati Serigne Saliou ak yokkute la ku xool tànt bi ah jërëjëf ku tànt bi ren xooloon ko daaw <laughs> ah na yéeme na Serigne Touba kenn du moom moo tax noppi tey jëf rek ku tedd ki la ko wax léegi sëriñ Saliou bu la dimbalee rek mën ngaa noppal parce que mooy ne say tànk mooy dox doxatoo yow amatoo affaire kenn moom moo amal affaire ñëpp parce que doo ci dara doo ci dara boo ci doon dara doo doon dara parce que doo dara sëriñ Saliou yi lépp ñi lay bëgg ñëpp seen cofeel gi ma ambal kan la sëriñ Saliou du ma de parce que bu doon Ousseynou Kane képp boo doxee tu romb am Ousseynou Kane fële moo xam ne booy grand lañ koy woowee rek bu doonub nga gis koo xam ne gënuma ko judd bu doon xam-xam la am na ñu ma mën a jàngal bu doon taar la am na ñoo xam ne dàll sax ma a dàq kon lan la xanaa baaxul sëriñ Saliou ak yërmande loolu rek la ana luy baax ga ak lu yërmande ga xamuñu ko en tout cas sunu sunu waar mooy di bëgg sëriñ Saliou ak di ko liggéeyal na ko suñu maam doon defee ak sëriñ Tuubaa noonu lañ ko fas yéenee defee ak sëriñ Saliou bëgg sëriñ Saliou ak di ko liggéeyal te nag daanaka xamal leen mosuma leen wax lu ngeen tegul seen bët su am de yaakaaruma nag ni li des ci dund gi dana mos saam lu ngeen tegul seen bët maa ngi ñaan sëriñ Saliou yàlla bu ma ko wax lool <laughs> man su ma leen nee yokk dañuy yokk ba faw te xam ngeen ci dara xam ngeen ci dara xam ngeen tànt bii ku ko xool sa yaram daw de xam ngeen ni démb ak tey ku ñëw ci barab bii da nga xam ni lu waaye nekk lu dul liggéeyal Sëñ Tuubaa nekkoo ci dara nekkoo ci dara Sëñ Tuubaa rek ma tàmbal Sëñ Tuubaa rek ma te gëm boo ko defee da tedd ba faaw ah, da ngay tedd ba faw te kenn du la ko kon nag maa ngi sàkku ngeen gën a góorlu waxtu wi gàtt na te léegi nag ma waxtaan ba noppi am ñu naa ma sëñ bi waxtu wi daa gàtt bi li nga wax daa gàtt fii la xar jaar waxtaan ma nanga waaye nag noonu la demee ndax temps bi moo gàtt te te yor-yor bi dañuy bëgg bu ñu bu tisbaar jotee rek heure bii rek daal di ñaan euh, bu ko defee daal ñaan def ziar bi ni ñu ko daan defee ci dal nga noppee ñëpp toog na ma ko waxoon daaw ma dóor bal bi bal bi nag tàkk na ndax li ñu ma jox ci nag ren xam naa ne bal bi tàkk na. ren mboolem koo xam da nga joxe nag daaw def nga lu ko raw dañ maa joxe nag ba ma tiit ba jàpp ne taalibe dañoo rax ay jinne te ku la ciy jox nag nag day boole ay jooy ak cant koo xam ne yow da ngay rus moo tax man lu ma def lu dul leen maa ngi ci erreur yéen da ngeen a war a yokk ba faw parce que bu ngeen yokkoo rek lépp baax da ngeen war a yokk ndax waxoon naa leen ko fii nii leen barab bi daa am lu ma fi dencal te ke ko fi denc mooy Serigne Saliou te at mu ne ngeen di gën a am lépp nag loolu cant la ak cant la maa ngi dogg ci Serigne Saliou maa gën a xam ni ñu may dégg daa demul fenn waaw gën a xam ni Serigne Saliou may dégg maa ngi dogg ca baaxam nga maa gën a xam ne mi ngi leer baas bi maa gën a xam ne couleur baas bi Saliou ko sensé maa gën a xam ne dal jii na ci yéen Serigne Saliou aka maa leer kon maa ngi dogg ci barkeem ñaan gi ma leen fas yéenee ñaanal su ma ko dóoree yàlla nay bal bu tàkk ba faw ci barkeb Serigne Saliou Mbacké sant naa lool sant naa cant goo xam ne mënu ma koo sax wax sant naa lool a ngi sant bu baax sunu waajuru jigéen wii nga xam ni mu ngi ci kër gu mag muy kër sëñ baara gi fi nekk xalifa sëñ maxaali ci kaw suuf waaye at mu ne man lay màggal si boobu cër am naa ko ci moom maa ngi koy ñaanal sunu borom fiq aw fanam te ndax salaa sallam daa mos a wax ñoom Fatima Roqaya Umu Kalsoom xool bi ak mu ne yéen day yar naa leen njëkk ngeen di gane àddina nee na kenn ci doom yi ni ko ah papa yar gi de kenn sikki sàkkoo ko waaye noonu yare avant ñuy gënaat dina mu ne damaa tànn seen waajur waaw <laughs> moo tax di soxna su baax lu am solo suy toj kaas di fel ay mbana di falax ay dàll di gajjeeka xullee musiba rek foo fekk soxna suy gajjee mu jur doom ju am paaka di jame <laughs> maa la ko wax foo fekk soxna suy xuloo doom jum jur ma nga ca mbedd ma garam place nett lu ko leer mooy métier mun taam métier mukk dam yee rek ak di nett li moo tax yar leen seen soxna yi te ngeen yar seen bopp ngir seenu njaboot ëllëg ñun ni ñu mel mel nañ ko ba noppale ñun moom <laughs> sëñ bi pare na ci moom moom pare na mel mel nañ ko ba noppi lañ bëgg mooy jaxasoog seen jëmm yii ngeen sa sap sëriñ sari war laa bëgg kon nag maa ngi sant maa ngi gërëm itam mboolem délégation yi fi ñëw soo fi nekkee di ko lim sax dana mën naa juum waaye ginnaaw soxna mat yi mi nu meññ soxna yi nga xam ni njabootuk sëriñ tubaa lañu ndax dereti sëriñ tubaa lañu waaye sëriñ tubaa dénk ma leen ñu nekk samay soxna kenn ki bàyyeekoo ci bànqaasu sëñ Baara rëkk day moom sëñ moom sëñ kenn ki bàyyeekoo ci bànqaasu sëñ Fàllu borom na am mu am moom sëñ Tuubaa te loolu de fois ma wax ni man sëñ Tuubaa defal na ma lu rëy ndax ñaari sëtam yi ma jox sëñ Baara ak sëñ Fàllu soxna Awa Busa soxna Awa Busa la ak soxna Aminata te soxna Awa Busa ak soxna Aminata Lo am na histoire dox seen diggante sëñ Tuubaa waaw xamul ni soxna Awa Busa moo yar sëñ baara maa la ko wax soxna aw busa moo yar sëriñ baara ndax soxna aminata loo daa teel a génn àddina te soxna aw busa ak soxna aminata loo ñoo bokk kër ku tedd ki seexul xadim sëriñ tubaa kon bu sëriñ tubaa jëlaatee ñaari sët ci ci même bànqaas bi bàyyi ko ci sama kër gii ñu nekk samay soxna di ma tër bi nungu wunoo xam sa seenu sant boo ñëwee ñi ku leen ni waa kër sëriñ tubaa leen doo ko xam nungu wunoo doon sëti sëriñ tubaa sax loolu tawfeex la mais yëpp ñoom ñaan boo takkee sëriñ Sëriñ Tuubaa mbàkk mbàkk yi dañoo boote naan li man de samay mbàkk mbàkk bokkuñ ci njaboot gi ma yor ñoom taalibe yi yëpp ay taalibe lañ parce que li ma leen xamal mooy gis nga ñun benn sëriñ lañ am mooy sëriñ Saliou sëriñ Fallou doon sa mu ne ah ma ne ko sëriñ Fallou sëriñ Saliou sëriñ Saliou sa maam tey yow sëriñ Baara doon sa maam ma ne ko sëriñ Baara sëriñ Saliou sëriñ Saliou sa maam tey mu jax taat ñu bokk nekk ay taalibe kon loolu maa ngi koy seeral mbooloo mi yëpp ni man kenn gënuma ay soxna ndax dañ maa tànnal njaboot si internet bi Tawfekh Production yàlla na ko yàlla defal Tawfekh ak ña fa nekk ñëpp as baax fàttewuma ko mooy naa ngi koy sant baax dalal na gan ñi sant naa ñëpp daal tant bi nag sedd na xol lool waaw seexante nee na ma démb est ce que xam nga ne tant bi nit ñi xajuñ ci ma ree ne ko yow toogal foofu yokkute moom dana am mais bii tant kan moo koy fi sax ndekkete wóote day kawe njort